waa daaru alima xam kan mooy sëriñ baara jàngul ba sonnu tondoon gaganti gaaya gagoon ca lawhu mahfuus man yem naa sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbe xam-xamu bi kamam booleeg firub alxuraan maa gëm sëriñ baara fa kun fa yàkkoon la dàmbee xam-xamub ikaman booleeg sirub alxuraan maagam sëriñ baara taalif na téere yu rëy yuy salmasi taxamul kaa nga kifoore du xam bindum sëriñ baara taalif na téere yu yuy salmasi taxamul kaa kifoore du xam bindum sëriñ baara ca alimul xaybu la tabe sëriñ baara sëriñ bu la sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawir bul yaanum sëriñ baara sëriñ bu naw sa cosaan bay weddi lii ma la wax jàngal mu nawir bul yaanum sëriñ baara sirub aroot ak bayaan ak téere yi taxa xam ca xaybu lañ tëbbe sëriñ baara ca géeje xëy bu la naan ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara ca géeje xëy bu ba maan di ñëw di bëngeen nekkuy lu mat dandu leen bal dey sëriñ baara koo xam ni kii bu mu saa tàngoor ba geesu wetam lum xol mu takk jërit moo di sëriñ baara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 koo xam ni ki manu laa naan géer ñi dënni ci Seex Ibra Faal santub Sëriñ Baara yónneen yaa xutbu yaak labdaar ya ak ñi fi woon kenn musu fee ñëw mbootum Sëriñ Baara ku du rasoolu doo Cheikh Bamba doo ku mu jur nox man ci toll Sëriñ Baara xarbaaxi seex bàmba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara xarbaaxu seex bàmba ak mbootam yu rëy yamu xam ak muxjisaatam ya ñooy xeppug sëriñ baara mboolam wilaayat sëriñ Tuubaa ga lay asakaam la seex si seddoon day baag ak sëriñ baara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 yàlla mu sawa may turandoo baara fanaa min daa gamoon Seex Bamba fekk ligal ba daabi jànnatoo wóor na sëriñ baara keroog ba Seex Bamba ne tey ajjana ku ca dem du ñàkk tey moo ca dem mooy ndoy sëñ baara maa soxna bu soo bëggoon na dem mu ni ko toogal ma dem te nga wuuf see falu baara bambayi koo foofa nag di toggi ca mara la dal di wàccum liggéey wóor na sëriñ baara keroog la bur yàlla naa rilwaanu ma ubbil ajana tey ma teral waajuru sëriñ baara rilwaan ubbi buntu ajanu bee kaawafal boobee ba tey tëjuwul ngir xeetu Cheikh Baara jigéeni àjjana waajak sentagaayi wurus di teeru soxna amin toloom sëriñ Baara maam soxna bu so des fii di seddale ngor diggante Seex Mustafa ak Falloog sëriñ Baara loola waral loola waral ba sëriñ Tuubaa sëriñ Fallu sëriñ Baara Cheikh Baara nag ba mu xamee ni doon xalifa la daal di wàccub liggéey jaaxal sëriñ Baara Cheikh Baara nag ba mu xamee ni du doon xalifa la dab jannatoo jaaxaan fa ma Baara ñeent fukki la fi am ak yu tafal dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ baara ñeent fukki at la fi am ak yu tofal soog dem jooy naa borom kàddu gi way man sëriñ baara def na fi lim war am na fi am am jur fi ñu baax ñi mu jur waaj na sëriñ baara sagal na maamam sëriñ Maranta Mbàkke ma woon fa neegi Kajoor jaajëf sëriñ Baara sagal na maamam sëriñ Maranta Mbàkke ma woon fa neegi Kajoor jaajëf sëriñ Baara gis naa Kajoor xéewal yi jama badan yoo xam ni dootu fa jóg lépp ak sëriñ loola waralaat mu jot doomam yu baax ya mu am ànd ak sëtam am màggal sëriñ baara ku di murit te foo man di jublu de yow bum nga fas wala rek waa kër sëriñ baara ku di murit te foo man di jublu de yow bum nga fas wala rek waa kër sëriñ baara am na ci yàlla ngërëm yoneen bi xëy ko gërëm Cheikh Bamba xëy na gërëm Sidi Lamine Bara عصمة وخير رسول لحاز عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول سبقت غيري إلى الجنان مع النبي قرص الأدنان يجدني عند مليك مقتدر كل ولي للجنان يبتدر أجابنا الرحمن الرحمن قبل الخلق سبعين alfa sanatin bilxaqi yaquudu li kun fa yakunu ma urid walaysa yanxuuniya cheytaanun marid darajati inda alilahi tartafic wa innani bila xisaabin antafic darajati kawni xadima almuntaqa rabiyu baahi xisbo dawa tuqa